jërë ngeen jëf journal l'observateur dafa xëy sol mayom sol sortam sol ay baam takk protest ci bi yaam teg ci takki godaasam dem ci football bi ba jeex ubbil yéenekaay bi Sénégal mi war a football ak Gambie tey jii ci Coupe d'Afrique bay am ca Côte d'Ivoire ci la jaare ngir dañu fàttali histoire bu mas a dox ci diggante ñaari réew yi mu di Sénégal ak Gambie ci wàllu football fukki fan ak benn ci weeru octobre la woon bi Gambie xañee Sénégal mu dem ca Coupe d'Afrique woon ñu ci mel ne Bounama Dièye ñu ci mel ne Louis Lamothe xëy nañu di ko fàttali ko wàll observateur keneen a ngi ku ci fàttewul dara mu di footballkatu Gambie ba woon Ibrahima Sona mi ngi wax ci l'observateur ne ca yooyu la jamono Alaaji Ousseynou Diouf moo ñu doon cokkaas ak doon ñu woo cib moo tax ñu tontu ko ci terrain bi Sénégal ak Gambie yi jaaroon foofee yéenekaay bi ne nañu ñoo war a dajewaat tey ji ñaari waxtu ci digg bëccëg gi maanaam 14 heures mu di derby boobu l'observateur na tarta dara xewagul Sud Quotidien nañu champion d'Afrique yore raay bi te war a lenn rek la ñuy xaar ci ñoom mooy ñu tegaat ci loxo match sub tay bi diggante Sénégal ak Gambie bés bi le jour jàpp na ne mooy pont gambien bi nga xam ne gayndee Sénégal yi in fokk dañu koy jéggi bu ñu bëggee doxal ci compétition bi entraîneur gayndee di Aliou Cissé ci journal bi jàpp nañu ne match bi ñu war a football suñ Gambie mooy match bi ëpp importance ci ñun lu tax mu ne mooy tax ñu mën a xam nan la ñuy doxalee ci yeneen match yi ci des stade yi ne kay ne wax jàngi noonu nag duggin wu xam ne fooy toll dana xam li Sénégal ëndaale loolee rek li mu jàpp ne moom la ñuy xaar ci Aliou Cissé ak gaynde mooy ñu xam benn kottu képp la ñu am tey ji mu di jàkkaarloo ak scorpion yu Gambie nappaaji leen jàll Kalidou Koulibaly capitaine u gaynde yi mel ni ku leen dégg ndax mi ngi wax ci xët mu njëkku bi suñu digg Gambie danañu ko def ne final suur soi nañu gaynde yu ñëw taxaw taxawaayu gaynde dëgg defal waa Gambie bagage loolu rek la ñu bëgg stade yi ne kaay am na leneen lu mu seetlu ba yeggee ñu ko ci xëtamu njëkk mooy Aliou Cissé bi mu doone entraîneur équipe nationale a gagné Gambie ci football ñu teg bal bi ci suuf te wax ci leneen coow lu journal yu bari yëkkati tey ci seen xetu njëkkam mu di kaa bu Karim Wade ak ñaari nationalité yi ñu koy waxal kii ci wax gi la yoon Le Quotidien nee nañu mooy Thierno Alassane Sall journal bi bind ne borom République des valeurs di Thierno Alassane Sall mi ngi jéebaane ñaari nationalité yi Karim Wade yor mu di bu France ak bu Sénégal ba noppi taxaw ne dafa bëgg a jiite réew mi ay farandom nag moom Karim Wade Le Quotidien nee nañu xamle nañu ne Karim Wade delloo na nationalité France am bu yàgg lise ko nañu coalition Karim 2024 ñoo ko xam ne ab communiqué lañ def di ko ca leeral la ñu waxee ne Karim Wade defoon na formalité yëpp ba autorité autorité yi ca France woon ko ñu dolli ci ne toog fii di wax waxi Karim tubaab la Karim sénégalais la xàmmee suñu ak boddi konte ci wàllu xeet France anki dine kay nañu Karim bi ñuy condition yi mën a tax conseil constitutionnel sukkandiku ci coowal double nationalité bu Karim Wade bi wax ngir invalider candidature am déclaration sur l'honneur bi Karim Wade def yéeni kay bi ne nañu ca la conseil constitutionnel di yamagum léegi nag Ceerno Alassane Sall mislu coow li bu déposé ab recours boole ko mu di preuve yu wér péng ci ne Karim mi ngi ñaari nationalité personnalité bu boobaa moom Karim Wade candidature am ci présidentielle yi yi fii la lépp di doxee tàbbi géej géeje waaye quartier ba ñu naan fa gàddaay BRT bi ñu doon inauguré fa la déparé woon soleil national moo ñu ko xëy wax ba dañu waxaalee wax ju fa président national Macky wax mu di ak BRT bi Sénégal tegaat na beneen jéego ngir gën méngoo ak jamono bus rapide transit bi njiit réew mi doon daloo keroog journal l'info li mu ci gis mooy président ci biir l'observateur ubbil yéenekaay bi Jalamba Dramé benn femme la bu dëkk ca Tambacounda jëkkëram da ko fee dem Mali di liggéey ndaw si wut aw far ci ginnaawam benn faro maçon di génn ak moom ba maçon bi tegal ko fondation maanaam ëmbal ko ndaw si wasin jël doom ja sànni cib teen